donc sama ñaari loxo. mu ne na ngeen xam ne kenn ku am yéene jox ko benn loxo mi nga am yéene jox ko ñaari loxo na ngeen xam loolu incha allah. boole ko sama jëmm lépp mu ne boole ko ak jëmmam ak léppam rek. mu ne ak xol bi ak xel mi. incha allah loolu lépp dañ koy fas yéene def seetlu suñu suñu laxasaay. dañ koy feddali suñu laxasaay mu ne loolu yëpp daf koy fas yéene feddali ay laxasaayam ànd koog yéen ànd koog yéen fas yéene liggéey lislaam fas yéene liggéey lislaam suñ kéem kattan suñ kéem kattan ci loolu rek la nekkoon mu ne sëñ Tuubaa ci loolu rek la nekkoon mu ne bi ko gisee ba mi ko noppee gis mu ne ci liggéey lislaam rek la nekkoon mu ne loolu nag moom la ñu fi bàyyil mu ne danañ ko def suñ kéem kattan def ci suñu lépp. mën a def ci suñu lépp. fas yéene gën a ànd gën a ànd ak yéen. gën a gën a liggéey lislaam. gën a liggéey lislaam. mu ne loolu rek moo fi ne. moo leen fi nekkee li tam. yéen na ñëpp tàllal seen loxo bisimilah. amiin. ko bindulu wadal kamili gëleen wan luy faratak luy sunna kile bi ñëw luy faratak luy sunna